leen jottali kàdduy sëriñ bi sëriñ baa ngi nuy nuyu di nu ndokkeel ci bis bu tedd bii nga xam ne ci lañu nekk yàlla na ko yàlla nangu dolli di sant yàlla bu baax a baax ci fekke gi nu ko fekk ren te ñaanoon ko ko daaw yàlla ñu yàlla mayaat ñu fekkewaat ko tam ànd ko wér kaddu yi sëriñ bii wax ñu jottali nag dañ ca tënk dañ ko tënk ci benn tomb tomb ba mooy fi jamono toll léeg-léeg waxtaan ak njaboot gi rawati ca ña ca di ay ndaw daf koy jar lool ndax lu xew rek ndaw ña ñoo ciy gën a sóobu seenu doxee nit ci lay gën a gaawe muy dénkaane boo xam ne nag mi ngi ko jële ci dénkaan loo xam ne Cheikhul Xadim moo ko dénkoon alxaji Mahamadul Fadal loo xam ne la ko waraloon jaar ca dana yàgg lool waaye bu ñu jaaree ci dénkaane bi rek ku dul moom it dana ko mën a jël yóbbaale ko sëriñ bi daf ko bind bataaxal Cheikhul Khadim moo bind Cheikh Mamadou Fadal bataaxal mi ngi nii may bëgg a jàng bismillahi rahmaani rahim amma baad falaa yagurannaka yaa bunay qiilu nnaasi yaa sayidana wa bna sayidina fa inna afdala siyaadati ma ktasabtaha li nafsika laa ma ktasabaha laka aabaun wa juduud wa inna alfaxra fi alafaali wal aqwaal laa fi alacmaami wal axwaal wa inna sharafa fi lhimami alaaliya laa fi rimami albaaliya <clears throat> li anna sharafa alaaraaqi yaxtaaju ila sharafi alaxlaaq wa lidalika qaalu laa xamda liman sharafa nasabuh wa saxufa adabuh wa qaalu kun asaamiyan wala takun idaamiya loolu lam tekki mooy sëriñ bi daf koo bind ne ko yow sama ndoom booba sëriñ Fallu jaayanteegu rek sëñ Tuubaa ci njureel gi mu ko jur yaa bu na yi la jëfandikoo bu la waxi nit ñi war mukk nit ñi nag li ñuy wax te mën a war ku nekk mooy sama sëriñ sama doomi sëriñ ak yu ko niru ci ay baat nee ko dool bu mu la war ndax li nit di gën a nit du doon kese kese luñ ko fàggul ci ay maam ak i baay waaye li nit di gën a nit ñi dëgg-dëgg gannaaw bu ko ñooñu fàggulee indi ko ci kaw suuf mooy lim fàggul boppam ndax nit ñi ngi koy nawee ci lim wax walla mu jëf ko waaye deesu ko naw rekk ci boroom baay yu baax yi walla boroom najaay yu baax yi nanga xam ne nag teraanga dëgg-dëgg it joj àdduna jëm àllaaxira li koy tax a am mooy yitte ju kawe waaye ña fi bàyyi bu yàgg ba ku seetoon fañ leen def dafa fekk dara mënuñ ko jox kenn tilka ummatun xad xalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluuna amma kaanu yaamaluun nee na daal yax bu rëy jikko ju rëy ko gën nee na ko it ku ñu ku ñuy tagg ci aw askan kese kese suñ ko bàyyiwut léegi tey mu wax walla mu jëf lu yóbbu loxo gémmiñ te doon ab tib ne ko da fexe ba jëfandikoo léebu wii nga xam ne wu naar yàgg a wax la fexeel ba nekk isaam te ba a nekk ay yax kese kese kun isaamiyan wala takun isaamiyan isaam ab doxandéem la woon bu ñëwoon cib dëkk ñu doyadal ko lool kenn tegu ko fenn waaye nag mu sukkandiku ci bëgg boppam ak xam boppam sëriñ bi nee na ndaw du gëm boppam waaye day xam boppam te bëgg boppam te ku bëgg boppam ak ku rëy neexut a xàmmee waaye bu jëflante yow nga xam ko ndax jikko ja mooy tax da ngay xam ne suy jëflante ak yow du jëf mukk lu ñu lu yëbb loxo gémmiñ te doon ab tip waaye du ko defet ñi di ko dégg Ansa moomu nag nekk fa ci dëkk ba ci góor góorlu boppam ba xëy xëy buur woo ko teg ko ci peggam ne ko du ma def mukk loo yëgut wala ma di ko wax te loo wax ma def ko moo tax ñu daan léeb naan fexeel ba nekk ansaam te bañ a nekk idaam ansaam nit la koo xam ne daa ñëw ci dëkk bi tumuranke fa lool kenn bàyyiwu ko xel muy dem di dem ci ñaqu boppam ak góorloom ak xam boppam ak bëgg boppam ba jege lool buur ak di def di dindi sëriñ bi ne la kon mi ngi dénk ndaw yépp ñu bañ a gëm seen bopp waaye ñu xam seen bopp euh, xam ne ku ci am paggu téefu ñu baax indi la ci suuf da ngay fexe ba fuñ yemoon nga weesu ko te bañ di leen waxtaane kese yam ca euh, isaam moom moo waxoon ne nafsu isaam nafsu isaamin sawadat isaama wa allamatul karra wal aqdaama wa sayarathu malikan humama kon sëriñ baa ngi sant ñépp di gërëm ñëpp di delluwaat suñu boroom di ko ñaan nii munu maye ñu fekk ren ñu ñaan ko mu fekk fekk wat déwén tam ànd ko wér ñi nga xam ne ñoo fi bàyyi ko ci diggante daaw ak sëriñ bi nee nañ xam ne seen seen yaafus yóbbuwu leen ñu ñi fi des suñu njàmbaare wala ak muuste bàyyiwunu fi waaye nee na mi ngi jaale ñëpp di ñaan suñu borom ñun ñëpp mu dugal leen ci biir yërma ndéem di jaale bokk ñëpp itam suñu dëkkandoo ju dëkkoon fii ci dëkk bi El Hadj Mame Mor Mbacké moom Cheikh Mahamadul Fadal te Cheikh Mahamadul Muntaxa ko. lu jëm ci daara yi ak njàngum alxuraan bi yëpp sëriñ bi nee na ne ko ñëpp ñaanal suñu borom wanale ko ak mbooleem ñi bëgg a gisante ak ñoom rawati ci nag way juróom ak maamam ja di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi nekkal sëriñ Touba suñu boroom yàggal ko fi te may ko ak wér te saa bu geesoo nag gis ñu ci gannaawam ñu topp ci moom di ko jaarale ci alaaji Abou Baraka moom Cheikh Mouhamadul Fadal moom it suñu borom àggale ko naalam yépp eh, te mu ànd ko ak sëriñ bi ak mbooleem ñu ko seqal sëriñ bi Cheikh Abdou Fatah laa ci jublu di ñaanal waa réew mi yépp jàmm yàlla na fi yàlla def jàmm di ñaanal yàpp réew mi yépp ak wér yàlla na fi yàlla def ak wér di ñaanal réew mi yépp naataange yàlla na fi yàlla def naataange di ñaan suñu boroom nawet bii nga xam ne ci la dugg mu doon nawet bu àgg bu barkeel te ñun ñi ñëpp ñu fekk ko te muurloo ko asalaamaaleykum wa rahmatullah